site d'information sin TV qu'un fichier ci diwanu Fatick un délai lu bees tàkk plus lu jëm ci sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamantene da plus top lepp lu jëm ci walu actualité sin TV nek fi ci diwanu Fatick togal fi région bu ak Sénégal TV joko Je m'appelle Madame Thérèse Diouf. Je suis membre du conseil d'administration de l'hôpital régional de Fatick. Je suis en même temps conseillère au département de Fatick. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm docteur Cheikh Kanté bi nga xam ne moo le président du conseil d'administration ndax tey daf ñoo indi loo xam ne ñun daf ñu jële ci kaw muy lu ñu neex nouvelle bu neex boo xam ne daf ñu bett li nga xam ne moo ñu fi dajale nee dafa bëgg ndax ñu tuddee hôpital bi madame Mariem Faye Sall. Euh, première dame du Sénégal mu nek lo xamné ne du chance mais mérite la parce que daf ci yag yëngatu ci wërgu yaramu doomu adama. bañ na ba mom ci boppam su ñëwé fi au niveau de Fatick limu ñëk def moy recenser ñëpp ñi nga xam dañoo fébar jël leen en charge Té ken du ken ken kenn xalaatul deful pas de discrimination amul ki li la amul kële la la mais elle prend tout le monde en charge. bu ñu toogee ba moom ci boppam ñu jël hôpital bi di ko ko tuddee vraiment mu nekk suñu mbégte di nekk suñu kontante ñu ñu kontaan ci bu baax a baax a baax surtout nag ci ki nga xam ne moo initié loolu muy docteur Cheikh Kanté parce que moo am xel xalaat na kii mën nañ ko tuddee premier dame ñëpp ànd ci premier dame kenn du réere mbir li muy liggéey ci wax Sénégal ma ci Fatick mais li muy liggéey daan tout senegal Sénégal yëpp xam nañ ko ci wërgu yaram ci dimbale doomu aadama ci taxaw doomu aadama ci jàppale doomu aadama kon boog loolu suñu mbeg la ñun population Fatick mais population population Sénégal yëpp ñoo ci ànd am am ci mbégte parce que c'est la première fois ñu jël hôpital di ko tuddee jigéen te loolu mu une première nekk fii Fatick nga xam ne borom këram son excellence le président Macky Sall fii la juddoo yaroo fi màgge fi am fi teraanga tey soxorewul dara waa Fatick lépp lu mu am indi na ko fii Fatick kon du ñu def dara lu di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ndax lii tour bi yàlla na ko jig li nga xam ne mooy mooy département bi aussi au niveau sanitaire léegi wax na ko nee ko au niveau de Diofior pour ñu def ko niveau un dégg nga ko équipé ko en case de santé vraiment loolu yëpp wax nañ ko ak maternité wax na wax na ko fii dafa am loo xam ne comme yeggaguñ ci nag xaj na lu bëri mënuñu ko wax mais bu ñu ci yeggee ci cappaandaw li lépp li nga xam ne moom lañ prévoir te li nga xam ne mooy dans le département de Fatick en matière de santé dina dina yëpp lépp la bëgg a yokk lepp la bëgg a yokk mais comme yàggaguñ ca mais lu ñuy mébét la mais dinañ ci dem bés buñ ci demee lépp dina gën a leer. je m'appelle Aïssatou Diouf. tey euh, dafa nekk euh, bés boo xam le président docteur Chakande dafa convoqué en urgence une session extraordinaire pour euh, ak conseil les membres du conseil d'administration de l'hôpital de Fatick régional de Fatick pour s'enquérir la situation des populations qui viennent ici. c'est-à-dire euh, ay urgence la ñëw xool si woon d'abord ci hôpital bi xool manquement yi mais xool tamit xam nga am na ay faiblesse am na ay avantage ñu constaté ne euh, membre euh, membre conseil d'administration bi wax nañ lu bëri ci lu jëm ci li ma ci gën a jàpp sax man mooy li nga xam ne mooy contabilité bi amul caissier mu nekk ñàkk couverture ci ñoom en tant que day am problème loolu dama ko ci téye ñu ne loolu seen problème la seen problème tamit nekk na loo xam ne mooy 25 lits ci biir hôpital bi te day am 2200 naissances par an ma constaté tamit ñu ne euh, war nañu am euh, meilleure prise en charge des des des agents euh, pour ñu gën leen a dimbale. gis nañ ne tamit ci problème retraité tamit day am problème toujours loolu yëpp ñu dis ko Cheikh en tant que président du conseil d' administration mais aussi ñu magnifier li nga xamante ne mooy.

ñi def tamit defal na leen ben télévision bo xamné ci lañuy xol patient yi avant ñuy dugg ci biir pour les accueillir lool tamit lu am solo ak yeneen ak yeneen yo xamné ne mu ne su ko wax fi te tamit dafa envisager jël hôpital bi def ko hôpital bo xamné de niveau 3 euh fi ci Fatick jël bu jof Diofior def ko de niveau 1 donc mu nek ay yu am solo yo xamné da ko bëgg def fi te bu ci yàlla àndee dina ko def nga gis na kii c'est un homme social un homme multidimensionnel un homme boo xam ne un grand management boo xam ne il mérite d'être soutenu d'être accompagné il il mérite aussi d'être connu par les populations parce que li mu fi def jafe na euh, responsable politique bu koy def ñëpp a ngi def nag mais moom dafa nekk euh, un homme à part jërëjëf daal ndax yàlla moo ko may xol bi may ko largesse bi may ko bonté bi ba nga xam ne ci social ak dimbali doomu aadama ci la nekk. li ma ci gën a neex nag mooy dañu pour wax ci affaire hôpital bi mu proposer aux membres du conseil ne leen nan laay def na dañ bëgg euh, sama xalaat mu nekkon tay ak sama mébét ak sama bëgg-bëgg moy ngeen jël ñu jël hôpital bi tuddee ko la première dame Marième Faye et ça a été accueilli à bras ouverts les gens ont voté les les membres du conseil ont voté à l'unanimité amul kenn dess kenn ko ma ñi fié ko kontaan ci. andi ci mbégte mu rëy rëy rëy donc loolu mu nekkati benn pas boo xamante ne ci xalaatam bu rafet ak ci jëfam mu proposé ko gars yi gaa yi d'accord ci donc loolu lu rëy la ci docteur Cheikh Anta lu mu defati Fatick mais aussi ki ñu ko tuddee mu jar a tuddee parce que Marième Faye day jigéen joo xam dafa mën góor jigéen ju baax jigéen ju œuvre sociale di def lu nekk ci biir réew mii même opposition bi waxuma la opposition bi sax mais ñu ko bañ d'accord nañ ne c'est une boo xam ne ci sociale lay liggéey ñëpp lay jàppale. amul opposant bi amul ku nekk opposition ñëpp lay jàppale muy def lu baax ci réew mi ku feebar mu faj la di yóbbu nit ñi ay Tunisie di yóbbu ay France di yóbbu ay Maroc wax dëgg yàlla fu nit nekk feebar rek bu ko Marième Faye Sall yëgee dugal na ci loxoom. donc bu ko tuddee hôpital wàccoon na moom ak lu baax la ñuy def ci réew mi ñu koy ñaanal yàlla fu bëgg yegg yàlla na fa yegg day dem demut ñun suñu sañoon du dem Marième Faye Sall ak jëkkëram dañuy dem demuñ suñu sañoon du dem dañoo bëggoon mu toog fi nag. Nous, avons ak Cheikh Kanté mi ak ñi nous ne Sénégal parce que nous ñu gis nii daal bu dakkoon dina fi gën euh, municipal la mairie de Fatik, président de la commission santé action sociale dama ñëw fii euh, représenter le maire de la commune de Fatigue euh, le conseil d'administration de l'hôpital régional Nous avons fait une session extraordinaire du conseil d'administration mu avons rek le président du conseil d'administration le docteur Cheikh Kanté convoqué woon ñu fii en session extraordinaire C'est bien le point rek de l'ordre du jour Moi, dafa bëggoon proposer ne hôpital bi boo bëlee comme que amul de l'hôpital, hôpital yu a am nañ au Sénégal ñu ñu jox ko tour tur bi nous, à l'unanimité nous choisir la première dame euh, la première dame madame Mariam Faisal, pour nous tuddee ko hôpital bi loolu nag gis ngeen ko suivre ngeen ko à l'unanimité nous ñëpp d'accord ndax nak la première dame sha allah ñep ko xam ci Sénégal mom c'est une dame sociale loolu je crois que ken ken duko ken duko wéranté ko ku sociale la à travers sa fondation je crois que fondation Servir le Sénégal jàppale nañu bëri ci ci Sénégal donc buñ togué gis hôpital Fatick amul tour ñu nan ko ko wax deug Yalla ñu ñep ko rafetlu dañ ko voté à l'unanimité ñep d'accord si lolou donc de remercier voir son excellence le président de la république wax nak ah hôpital faté bi wax dëgg yàlla jafé ah, jafé mom du du manqué mais temps yi wax dëgg yàlla bo gissé euh, au niveau du ministère de la santé gis nga indi lañ fi ay ambulance yu bari indi fi matériel yu bari le président du conseil d'administration le docteur Cheikh Kanté mom aussi gis ngeen ko wax nañ ko légui indi ci si hôpital yi ay matériel yu bari surtout en ophtalmologie docteur yi sédé nañ ko donc di rafetal di gërëm bu baax en tout cas ñun rafetu lañ bu baax ñëpp and nañ ci à l'unanimité pour pour hôpital bi ñu jox ko Touré Mariam Faisal lool mom honneur la ci daam sax si si jigéen ñi nak ndax c'est rare nga gis aussi euh, hôpital bi nga xamné ne Touré nañ ko jigen donc lool aussi sagu jigen ñep la sagu jigen Sénégal yep la donc dañ koy rafetlu bu baax a baax le euh, docteur Cheikh Kanté président du conseil d'administration wax nako ko euh, né hôpital bi na nek hôpital de niveau 3 wax deug yalla té Fatick mérité nako ñep mérité nañ ko ñep ñew di di faju di di remercier aussi le personnel médical bi nga xamné mo ngi ci hôpital bi wax deug yalla gis nga gis ngeen leen ñu ñu am Pastef lañ bu madaal yi ñëwee dañ leen di fajj correctement vraiment ñëpp content nañ ci di gërëm ñëpp di sant ñëpp. je m'appelle docteur Assane Ndiaye je suis le directeur régional de la santé de Fatick. tay li def en session extraordinaire dañ koy rafetlu dañ koy rafetlu parce que ki ñu wara a hôpital bi au delà de sa posture de première dame man de personnellement amoon na benn projet boo xam ne wax dëgg mag ñi nga xam dañ nekk en situation de vulnérabilité socio-sanitaire au niveau de la banlieue de Dakar ak Rufisque ak également au niveau de la région de Kaolack def nañ ko Kaolack def nañ ko on a vu des personnes âgées yoo xam ne dafa jël ñun man maa doon piloter coordonner ce projet dañ doon dem sur le terrain dem si biir kër nit ñi fekk fa nit ñoo xam ne dañ nekk dans des situations assez difficiles ñu jël ay garab jox leen jël ration alimentaire teg ko seen loxo yemuñu si loolu ñi nga xam ne sax dañoo am ay problème de déplacement ñu leen di jox ay fauteuil roulant di leen jox ay déambulateur di leen construire ay sanitaire vraiment loolu lu rafet la qu'on, au même delà de sa position de première dame ku lu a le fait sincèrement à l'unanimité l'ensemble des membres du conseil d'administration de l'hôpital régional de Fatigue ont voté à l'unanimité ce que ba parle tamit saluer également cette initiative que le président du conseil départemental de Fatigue a fait à l'endroit de la personne de la première dame qui c'est une personne il y a une empathie très développée, qui le fait dans la plus grande discrétion, sans intérêt, sans identification de parti pris. Vraiment, elle le mérite à plus, plus d'un titre. Merci. Je m'appelle Neiko, Neiko Latoulou, euh, cabinet Cheikh chef, le docteur Cheikh Kante, ministre d'État. Je euh, suis dans la commission santé bokk le conseil d'administration bi. xam nga loolu mooy tey honorer la gente féminine nous ñëpp la pas honorer euh, Moi, euh, le ministre d'État bi nga proposé lolu parce que ñun jigéen ñi ñu la honoré parce que Marième Faye Sall man de wax Garde fa ko mais actuellement, man ci santé la nekk nekk à hôpital de garde ay à may gis muy jël xaalisam di jënd ay ordonnance di de patient yi bon tay limu def ni limu def ni li euh, ko proposé docteur Cheikh Kanté def ko dafa manam dafa delloo